الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار سلام فعمهم بدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء النعمة منه فضلا هذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته ولا متمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وهجة على العباد أجمعين بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا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 mbok ñu déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gëna bu sante yàlla doole sante yàlla bu baax way di santaat yàlla mi ñu may katan may ñu fekke ben delu ci wa di def waxtaani fajar di wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi daiman wa rabbil alhamdulilahi kasi ala kulli halin waaye di julli si yonent bi sallallahu alayhi er. wa sallam ak waa kiram ak saxaabaam ak képp ko am yaa ngi topp sunna bi ilaa yawmil qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala nangu yàlla xëy jaama inde ko fanaanoo ko yàlla muy jaama yàlla dafa jaama yokk ñu sutura yokk ñu kattan yokk ñu wér ñi feebar nekk ci kër gi nekk ci lopitaan waaye fi waaye nekk di jaama yàlla muy saafara yàlla ñu yàlla boole may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla may ko mboolam julli si kaw suuf julli judd àllaaxira yàlla yërëm leen yaatal seen baamel def seen baamel mu nekk rawdat min riyaadil janna njaboot bi yàlla sàmm leen aar leen ndax leen ko yàgg tamit si yoon siraatul mustaqim jigéen yàlla sàmm leen yàlla boole ñu defal ñu xéewal yi àddina xéewali allah mu ci safa mbokk jullit yi xam ngeen ne doomi aadama warta ragal li nga xam ne mooy dee alxawfu laysa min al mawt parce que dee moom bàyyi falaa budda mu am waaw falaa budda mu am bon nag waruñ koo ragal waruñ koo ragal waaw li nga xam ne ku mos dunda rek mos dee comme aaya bi nga xam ne moom la yàlla kullu nafsin zaa'ikatul mawt muy aaya boo xam ne sax jot a firi ñëpp mokkal nañ ko ñëpp xam nañ lu lum tekki bon nag loolu kenn waru koo ragal waaw ku nekk see jaar ku nekk nag xanaa ku judduwut ka judduwut rek waaye ku juddu rek ah kañ koo sañu wa bakkeen rek jeex na kooku dina mos de bon nag loolu warut a nekk suñ ragal parce que ku nekk na dee li war a ragal boo ko julliti mooy lan. alxabru wa zulmat baameel ak lende mbaayam baameel amul làmpa baameel amul air condition baameel amul xita baameel amul facture amul bil amul bili téléphone bili gaz bili électricité amul bil baameel boobu tiitaangi war a am ñu ñëpp ñu xelaat ku tëju sa néeg fay lampay fay yëpp waa ci rido yi gis ni léegi naka la moo leen demee mbokk jullit yi nga xool xool mun loo gis mun loo gis dara si biir néeg bi te lii yaa ngi si biir àdduna bi si ki nekk barsak fi nga xam ne nag dara nekkaatu fa lu dul suuf moo nekk sa kaw suuf nekk sa ron yépp di ay suuf ñu suul la si defar ko ba mu baax mbokk jullit yi lenn maay boobu foofu la nit war a ragal waaw foofu la nit war a ragal ak fan wa siraat wa zillatihi ak siraat jàll yooni siraat nga xam ne lu ragallu mu yoon bu sew sew sew moo gën a sew eh, kawari bot ak yëngatoom ak yëngatoom loolu tamit nit war na ko xelaat ragal boobu nit war na xelaat loolu wal misaan wa xifatihi ni ki war a ragal balansam bañ ko peeseel jëfam ya ndax dafay oyof ndax dafay diis loolu yëpp doomi aadama dem ko war di soraale si kaw suuf di xelaat man suma jëf lan laa see mun a def bi am jëf yi nga xam ne dafay daane suma balance si jëf yu baax mu ne wal azab wa shiddatu waaw nga xilaat mbugal ak metti wayam lolou yeb fa mo amé mo yomal qiyamah jul bi nak buy sóoraale yiñ tuna ni bokk juliti dina mëna a defaraat boppam defaraat jëfam jaamu yalla baña a yalla baña def shirk baña def bidaa ndik yep, mbokk juliti ay jaar jaar yo xamné ne nañ si jaar ñepp nañ si jaar te yonent bi salaa sallam wax nañu ay azkar ay tudda yoo xam ay ay yàlla yoo xam ne xakañ ah lii yëpp dinay dimbale nit ki pour sa yoon boobu nga xam ne ñëpp a jaar mu nekk yoon bu leer yoon bu yaatu yooni jaama boo xam ne moo yooni siraatal mustaqim mu yoon bu ginaa a jub si yoon yi yonent bi alayhi salaatu salaam yëpp jàngal nañu ko mbokku jullit yi yonent bi na si azkar yu ñu jox yoo xam su ko nekk di def bés bu nekk rek téeméeri yoon def suba a ko def walla ngoon nga xam ne soo sa làmmiñ su ko miinee boo koy def du passé juróomi juróomi waxtu safla juróomi minute waaw sa làmmiñ su ko miinee du wala fukki minute nga ci xel ko macha allah muy baat yoo xam ne salaa sallam mooy yii nga xam ne mooy sunnaam bi nga xam ne daf ñu ko jàngal muy luy oyof si làmmiñ waaye lu am tiis lool sa yàlla subhanahu wa taala waaw nekk njëriñ bu rëy si yàlla subhanahu wa waaye nag oyof na si laameñ ba tax na laameñ bu nekk rek war na ko mun di tudda bés bu nekk téeméeri yoon da suba nga ko def wala ngoon mu ne baat yi nag moy lan ñaari baat bi nag ñaari ngëneel la am ngëneel bu njëkk bi moy ne ko koy faral di wax bes bu nek téméré yoon di nga am dal ci sa bir bàmmeel do am loy ragal sa bir bàmmeel bes bu ñepp di tit, di tiit yo do ci bokka bes bi nga xamé ni ñepp dinañ jox seen wara jaakarlo suñu borom subhanahu wa taala ragal am titangi am ñu ne yow mi nga xamé ni yaangi saxo baat yi bu nek di wax yo do ci bokka bon baat bobu jarna ya nga de ak lu ñaaka jot na ko góorgóorlu di ko déglu di ko déglu ba mokkal ko di ko def bés bu nekk waaw mu ne baat ma wax si nii ba bu njëkk bi mooy loolu ñaareel bi mu ne yow di nga bokk si zumra maanaam groupe bu njëkk bi nga xam ne ñoo njëkk a la ngaamu sa bunti arjana ba arjana ba pour dugg arjana macha allah subhanallah waaw ndig baat yi ko ko saxoo di def yow da ngaa si jaamu yàlla bu wér. da ngaa moytandiku loo xam ne yàlla def ko tere loo xam ne bidaa yonent sallam tere na ko moytandiku ko mu ne donc baat bii bokk na si njëriñam mu ne topp nga bokk si nga xam ne dinañ téye sa lam bay bunti arjana sa lam ya ngay langaamu yow si ngay bokk maanaam si njëkkaa dugg foofu nga bokk waaw baat bi nag mooy lam bokk jullit yi yonent sallam mu ne kuy wax bés bu nekk téeméer yoon laa ilaha illa allahu almaliku alxaqu almubin لا إله إلا الله الملك الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين ñetti له Nah. La ilaha illallah la ilaha illallahu lolu min nañ ko ñëpp min nañ baat bobu lan nga al-mubin. Al-maliku, al-haqu, al-mubin. La ilaha illallahu al alxaqu almubin macha allah baat yi nag moom la yëndu sallallahu alayhi Wasallam di wax ne kep ku koy def bes bu nek téeméeri yon hundred times ida suba nga ko def wala ngoon boo si def rek na nek si bes bi rek mune yo do am tiitaangi sa bir pamel te bes bi ñëpp di dekk tamit do bokk ci ñi jaaxle di tiit déedéet baat bi moy lay ramu mune way da ngay bokk si groupe bu njëkka gannaaw yonenté yi yow ci ñi njëkka duga arjana ci ngay bokka kon ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa taala yalla ñu yàlla warsagal mujj bu yàlla subhaanahu wa taala yàlla yàlla ma warsagal mujj bu rafet yàlla yàlla may mujj bu rafet allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin